ñu ngi fas yéene ànd mbokk yu tëddi bi awnillahi tabaraka wa taala wa tawfiqihi tàbbeeg yéen ci suñu ñaar fukkeelu darsu ak juróom ci taaliq bi ñuy jéem ci téere bu tëdd bi di jawahirul maani wa bulughul amani في فيض سيدي أبي العباس التجاني رضي الله تبارك وتعالى عنه ñu ngi taxawoon ak yéen ci dajeewam ak cheikh sayidi al qutb euh, ki nga xam ni mën nañoo wax ne ci dundu Cheikh Tijani radiallahu taala anhu joué na ci rôle bu am solo lool lool muy Seydi al Kurdi ñu ngi taxawoon fi mu koy laajee ak fim koy xabaare laaj na Cheikh Tidiane gannaaw ay fan lanay sa sàkkuteef mu ne ko al qutbaniya al uzma mu ne Cheikh Tidiane radiallahu anhu sa mbir ëpp na qutbaniya al uzma gannaaw bu mu xabaaree Cheikh Tidiane yu bari ci ay mbiram xabaaree na ko moom seydi mahmudul kurdi mooy kan xabaaree ko mbiru sëriñam alxifni ak mbiru sëriñu sëriñam seydi mustafa al bakri as siddiqi radiyallahu taala anhum ajmain fa tahayyaa ci jamono jooju nag la préparé wu sayiduna Seydi Ahmed Tijaani radiyallahu taala anhu li safari li beytillahi alxaram pour tukki jëm ca néegu yàlla bu sell ba fil baxri jaaree ci yoonu géej gi fa waadahu cheikhu sëriñ bi joxanteeg moom rendez-vous ndax buy dellu joge alxaramu sharif foofu lay jaaraat wa daalahu tem ñaanal ko yamu ca wa daminahu mu warlu ko fi safarihi ci tukkim ma fi dhihaabi ci dem ga wal iyaabi ak ci dellu ga mu warlul ko ne ko yoonu jàmm ngay am ci sa dem ak ci sa dëpp falamma balaga faa gi li mu représenté mooy cheikh radiallahu anhu jóge fa war ca waru waaye wa mu war ca ba ñu yegg ñu def yooyu ñu war def yépp léegi nag àgg na ilaa makkata falamma balaga ba mu jotee ila makkata ila makkata jëm ci makka al musharrafa di dëkk bu ñu teddal ba te sama borom a ko teral yal na ñu boole ca teranga ja zaadaha llahu uluwan yal na yàlla yokk makka kawe wa rifaatan ak yëgatiku wa sharafan ak tedd nga wa makaanatan ak dayoog daraja ba mu yeggee màkka fi shawal ci weeru shawal sanata sabaatin wa thamanin bi taqdimi siini ala albaa'i wa miatin wa alf atum junne ak téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ñaar buñ la laajee cheikh tijaani radiallahu taala anhu kañ la aj neel atum junne ak téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ñaar booba ma nga am fanweeri at ak juróom ñaar trente-sept ans xam nga départ na bu yàgg waaye mu ngi soog a agsi ba mu yeggee nag moom cheikh baxasa la tàmbalee gëstu hunaalika foofe an ahlil xayri ci ñoñ yiw wa salaaxi ak yiween wa rushdi ak njub wal falaaxi ak mbégte ak uk texe wal falaaxi ak mbégte waaye wal falaaxi ak texe ba mu Makka néewut cëngum rekk lu dul mu tàmbali di wut ñooñ yàlla ñi nekk ci goxi Makka kama hiya aadatuhu ni ki nga xam ne looloy aadaam radiyallahu anhu li yuxassila ngir mu am waaye li yu ngir mu segg kamaala talabi ràññale matuk sàkku gi maanaa sàkkum gi daal duut lu muy sàgganee waaye càkkutéefamit duut lu mu tuutal nam koy sàkkoo it dafa ràññeeku ba lu ëpp ci nit ñi ni ñuy sàkkoo li yaxsula baax na li yuxassila lan kamaala talabi matuk càkkutéefam wan najaaxi ak matuk réussitam fa ca booba jamono samia la dégg bi cheikhil imaami sang bay ilimaan alxabril humaami foode ju mag ja badri tamaami di weeru mët wa miskil xitaami am na ci nusxa yum nekkut nag moo tax mu xaqiq bi def ca ñaari bracket wa miskil xat xitaami nga xam ne mooy gëttug misk gu mottali ga aha xitaamuhu miskun mhm. wa shamsil anaami ki nga xam ne mooy sangub mbindeefi mooy jëntub mbindeefi wa qamari daaratil a'laam ad daaratu min al qamari haalatuhu ko kalla muy sayidi ahmad bni abdillahi lhindi qaatini makkatal musharrafa ka nga xam ne dafa tànn makka gu tedd guñ teral ga radiyallahu anhu muy dëkkuwaayam sayidi ahmad bunu abdillahi lhindi sufiyanke la joo xam ne néew na nga gis suufu yanke juni mel ba mu dee suufu yanke yi suufu yanke ju xam bërëmam la ndax ah, dañu wax ne jullitu kese-kese bu suubu ci ñoonu tasawuf mën naa weddi mu tasawif mu tasawif bu yeggagul ci darajaay suufi yu mën naa weddi suufi yu waaye suufi yu bu yeggagut ci maarifatu mën naa weddi aarif mën naa bañ nekk sax weddig diingat waaye weddig ñàkk xam lay doon aarif nag du weddi kenn ndax dafa peg kii nag mu ngi bokkoon ci ahlul maarifa yu mag ya di kenn min alaami tariqati naqshabandiya bokk ci njiitu tariqa bu tedd boobu ñuy tudde an naqshabandiya yeggam ci yàlla nag mi ngi amee ci loxo kilifa gu baax goo xam ne ma nga bokk ci awliyaa u madinati tanta ca misra ne ñu fa la suubam yeggee ci boromam tabaraka wa taala Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu am na kunaasha gu nga xam ne mat na fukki page ak juróom-ñeent almuhaqiq sayidi Raadi Ganuun yal na ko yàlla wëttu nee na moom teg na ca bëtam ci bindu Cheikh Tidiane radiallahu anhu kunaasha ga mboole ci ay lasraar yi Seydina Cheikh jëriñoo ci kilifa gi ma nga ca moo tax léeg-léeg nga gis dara ñu ne la kunaache Cheikh waaye xel ba xam ndax yi mu amoon balaa tariqa bi di dikk la walla dafa bokk ci asraaru tariqa ndax yi mu amee woon tariqa bi di dikk yonent daf ko bàyyi yépp yëm ca wéyal moom yonent sallallahu alayhi wa sallam rekk a wéy yëm ca wéyalut kenn ci ñun du ko jëfandikoo ngir ne lii ci mbootu tariqa bi la moo tax il faut faire très attention ci kunaasa yi ñoo gis léeg-léeg nga sax kunaasa yoo xam ni dañuy wax ne ci cheikh la waaye boo gëstoo da ngay xam ne dëgg-dëgg jógewul ci cheikh Tijaani radiallahu anhu te kunaasa gi gën a rëy nag ci tariqa bi mooy salaatul fatihi lima ugliq mooy al awrad eh, góor ga Seydi Abdullahi waladul Hajj nee na biyu awraadu tariqa mooy chammul xaqiqati l muhammadiya foon am accès ba foon al xaqiqa al muhammadiya waaw te awliyaaw yi jiitu Cheikh Tidiane yëpp kenn amu ci accès yow nag ñu jox la loo xam ne tax nag nga mën a am accès ci alxaqiqa al muhammadiya muy al awraadu lazima ngay sonnati ci yeneeni mbóot li xaajatin fi nafsi yaquba ba mu xañ la yàlla ko bi yonentam ko kenn du ko mën a dégg doy na sëkk doy na sëkk doy na sëkk aha Mm-hmm. nee na ci <clears throat> jamono jooju daal la daje góor gu màgg googu bi sayidi ahmed bni abdillahi alhindi axada anhu radiallahu anhu cheikh tidiane jëlee na ci moom uluman ay xam-xam waa asraaran ak i mbóot wa xikaman ak i njëriñ wa anwaaran ak i leer min xayri mulaqatin lahu nag ci lu dul dajeeg physique nag maanaa dajeewun ñoom ñaar physiquement muraasala lañ def bu Cheikh Tidiane gëstoo ba xam ne ma nga fa daje nag moom ci yónneewante lettre ak ci donnalante donnale mbóot waaye gisante wuñu physiquement te bind yii di ñëw danañu wax lu tax nena innama kaana dafa nekkoon yuraasiluhu di yónnent ak moom lettre maa xaadimihi ànd ak taalibeem ba ñu bañ a wax bëkk néeg mbaa surga nañu wax taalibeem ba wa huwa taale bi boobu alwaasitatu baynahuma moo nekkoon diggale bi intermédiaire ci seen diggante li annahu ngir ne lam yakun lahu idnun fi mulaqaati ahadin aslan li annahu ngir naka moom saydi ahmad ibn ni abdillahi alhindi lam yakun lahu idnun amul woon ndigal lam yakun nekkul woon lahu di ko ñeexal idnun ndigal fi mulaqaati ahadin ci daje kenn aslan maanaa dafa am ci awliyaaw yi ñoo xam ne yàlla dafay def doomu aadama yi dañuy dajeeg ñoom ñuy dajeeg ñoom njëriñ ya di yaatu ca wàllu googa am ñoo xam ne nag seen mbir dafa nëbbu doonte bari nañu seen mbir feeñ te ci seen barke la feeñee te ci seen service sax lañ nekk moom la nitu yàlla yi di wax naka lañ koy waxee mashahir fi barakati masatir wala masturin mashhurun fi barakati masturin waaw bari na ku ñuy joxoñ baaraam te ka tax ñu di ko joxoñ baaraam kenn xamu ko góor gi nag ku yàlla may la waaye amuloon ndigal dajeek jaami yàlla yi ni nga xamee ni góor ga ca Tunus te Seydi Abdou Samad doxoon diggante Cheikh Tidiane ak moom amutoon ndigal ci dajeeb jaamu yàlla ñeent rekk la doon dajeel guddi ajjuma ak guddi alxames góor gi tamit lam yakun lahu idnun fi mulaqaati ahadin aslan mm-hmm. baada talabi sayidina lahu bi mulaqatihi gannaaw bu sidna cheikh sàkkoo dajeek moom fa ajaabahu mu tontu tontu ko bi annahu laa idna lahu fi mulaqaati ahadin aslan amul ndigal ci dajeek kenn ndeysaan wante wanta faa jëriñu na sayiduna ala yadayhi sidna cheikh jëriñu na ci ay loxoom wa axbarahu xabaare na cheikh bi ma yaudu ilayhi amruhu mujjug mbiram wa qaala lahu anta yow cheikh tidiane mu ne ko yow cheikh tidiane waarisu ilmi yaay donn sama xam-xam wa asraar yi ak samay mbóot wa mawaahib yi ak samay may wa anwaar yi ak samay leer ah fa lamma kataba lahu dalika ba mu bindee loolu nag qaala li xaadimihi mu wax taalibeem booba nga xam ne moom la doon yónni ci Cheikh Tidiane ne ko xaaral léegi kuntu atarajaahu kii day laa doon négandiku kullahu ne ko huwa moom waaris yi mooy aji donn sama waa ji daal ak si makka moom la doon négandiku sama mission jeex na lahu xaadimuhu xaadiman ba ne ko haadihi muddatu thamaniyata achara aaman wa ana axdimuk fukki at ak juróom ngi maa service wala ana ata rajulun min naxiyati almaghribi taqulu lii huwa waarithi benn waay jógee wàllu maghrib rekk dikk nga ma kii moo may donn maanaa daal mel na ni complain moom foog na ne li muy liggéeyal sëriñ bi ak li mu nekk ak moom moo wara nekk waarisu asraadi cheikh kii nag yegg si amul sax permission dajeeg sëriñ bi sëriñ bi amul permission dajeeg kookee ci waahir sëriñ bi naan ko kii may donn mu ne ko ah, sama sang fukki at ak juróom-ñett ma di la liggéeyal léegi nag waaye jóge wàllu maghrib rek nga ne ma moomay doon fa qaala lahu laa ataraja illa huwa mu ne ko moom de xaaruma woon kenn ku dut kii wa hada laysa li ahadin fi ixtiyaar lii nag kenn amu ca ak tànn yaxtassu yàlla yaxtassu moom yàlla mooy jagoo te jagale bi rahmati yërmande man yashaaw ku ko neex yërmande yàlla yàlla ko moom ku ko neex rek jox aw kaana lixtiyaaru lii la nafaatu bi dalika wala di bii qablaka mundu zama mundu zaman mu ne ko law kaana lii law kaana lixtiyaaru su coobare ak tànn amoon lii di ma ñeel la nafaatu bi dalika ma jëriñ ci wala di sama doom la nafaatu bi dalika wala di qablaka waaye la nafaatu bi dalika wala di mu baamtu bihi qablaka su fekkoon ne sañ-sañ bi ci man lay jóge konoon balaa ma laa xam ma jëriñ ci sama doom walla balaa ma la cee jëriñ sama doomi bopp ji ma jur ma donn lokk sama mbóot waaye yëf yi moomum ma ko dees ma ko dénkoon xadara bi ma ko dénk nag moo ne ma boroom dikk na te borom eh, borom tuboy su jàngoo sol su jàngoo sol mu ne mundu zamanin jamono bu yàgg ngi nii waa ana taman atarajja maa ngi xaar di yaakaar dikkam wa ataraqabu lahu ma di ko fuglu fil xaybi ci xaybu nanfaahu ngir ñu mën koo jëriñ bi cheyin ci dara mhm. maanaam depuis jamono bu yàgg ngi nii may xaar ak di fuglu ci xëy bu ngir ñu may ma ndigal ma mën a jëriñ sama doom dara ci li ma yore waaye lam yurit namut laahu yàlla bi ci loolu xata ataa ba dikk na nag saaxibuhu borom mbir mi muy Cheikh Tidiane fa kataba li sayidina xiina idin nee na ca booba jamono nag la bind Cheikh Tidiane wa qaala lahu mu ne ko bi xaqi alayka bi xaqi maa ngi lay lëñtaloo xaq gi ma am alayka ci yow illa ma faalta maa waladi xayran lu dul na nga def ci sama ànd ak sama doom ji xayran aw yiw maa ngi lay xaq gi nga xam ne am na ko ci yow mooy li yàlla jaarale mbóot mi ci man mu dikk ci yow sama doom jëriñ ko wa axbarahu bi annahu yamuutu fi ishrina min shahri llahi dil xijjati alxaram mu xabaare ko ne ko man mii di ahmad ibnu abdillahi lihindi nag ci weeru wii di weeru dul xijja di weeru aj wi ci lay dee bu amee ñaar fukki fan fa kaana loola nekk kama qaala rahimahu llahu wa radiya anhu ni ko waxee ba ñaar fukki fan ci tabaski jotee ci la dee qaddasa allahu sirrahu falamma dufina bañ ko roowee ba noppi nag daa waladahu cheikhuna daa woote woona cheikhuna sunu sëriñ ci Cheikh Tidiane doomi góor wa daxala maahu lil bayti mu dugg moom néeg wa makkanahu mu jàppandal ko sirri ca mbóot ma xifdan ngir wëttu ak respecté amaanati cheikhi kollëre gi nga xam ne ak kóolute gi nga xam ne moom la ko sëriñ bi jox muy na jëriñ doomam walil wafaa'i ak ngir matal bi ahdihi ci kóllëre ak sëriñ ba wa kaana qabla mawtihi njëkk muy dee moom nekkoon na radiallahu anhu ata di jox li seydina ñee suñ sëriñ sirran mboot kabiran mu màgg wa amarahu tam digal ko an yadkurahu mu tudd mboot ma sabaata ayaamin mu zikar ko juróom-ñaari fan fa yuftaxu fa dañ ko danañ ubbi ca moom maanaam dana am fatxu ca saase laakin charta ba nag mooy yactazilu nnaas dafay beru nit ñi wala yaraahu ahadun kenn du ko gis xattu mukk baada hada amali gannaaw liggéey boobule fa lam yafaal sikarut sayiduna sayidna sañ suñu sang radiallahu anhu bi hada charte al bi ñu boole ca ndax moom mbiram duut mbir mu war a beru duut mbir mu war a tëju duut mbir mu war a xat kim doon na muy mawlaana rasulillahi ko yónni rahmatan lil aalamina yónni koy ila walil waarisi maalil mawruusi moom it mburam dafa war a daj àdduna te daj na ko nee na wa xiina dana mi ngi dellu siwaat ci fan yi mujj góor gi ba mu jegee arraxiilu la xas ga li arafa te jëm arafa bi nga xamee ne xujaaji war nañoo jëm arafa qaala lahu sayiduna radiallahu anhu sayidna cheikh fi risalatihi ci ab leetaram taaliban di aji sàkku minu ci moom almulaaqaata dajega li anna awaanal firaaqi ngir waxtu tàqalikoo xat danaa jege na li yandura ngir Cheikh Tidiane moom mën a xool talaatahu kanamu góor ga albahiyata gay aji leer wama wana yoqatut maanaam li ko góor gi waxoon ne ko awma ndigal jisante terewul ma ngay euh, xool rek ndax ci diggante ba ndigal dana dikk ngir mu mën a barkeelu xool kanamu góor ga balaa góor ga di dem ndax ñu ngi waaj arafa te ñaar fukki fan ci tabaski la góor gi war a faatu fa qaala lahu góor ga tontu ko ne ko la idna lii fil mulaqaati aw ma ci daje gi waaye yamut foofu laaj ba jëriñ na walakin li fi nekk tëltaqi da nga dajeeg bil xut bi baadi xut bi dikk sama ginnaaw yak fii ka dana doy la moom an nii walis yushiru lahu boobu moo ngi koy junji ila mulaqaati yi ci dajeeg gi mu war a dajeeg bi cheikhi sammaan muy sayidi muhammad ibni abdilkarim alshahiri bi sammaan ba nekk ca almadinatul munawara wa axbarahu mu tegal ko ci xabaare ko it bi annahu naka moom cheikh tidiane la budda lahu mënta ñàkk ci moom min buluugi maqaami cheikhi abilxasani achadili achadaliyi Achadili baax mu ne ko mënta mënta ñàkk ne ala fokk moom maanaam mi ngi koy bégal mi ngi koy xabaare ne ko danga jot maqaamaay Seydi Abul Hasan li lu mënta ñàkk la radiallahu anhu loolu nag mu xabaare ko ko kama axbarahu ni ko xabaare woon ca njëkk na na ko xabaaree woon bi daal ci loolu sayidi Muhammad ibn al-Hasan al-Wanjali almutaqaddami ki nga xam ne jiitu na dikruhu ak tuddam wa axbarahu mu xabaaree ko bi umurin ci mbir adidatin yu limu waaw wax ko ne ko di nga jot maqaama abul xasan mi nga xam ne mooy sëriñu euh, sëriñ si Cheikh tijan jot na ko ba ko waaw kenn ci taalibeem yi nekk na ci xutbaaniya at yu bëree bëree bëri muy al imaam al mursi imaam abul abbas al mursi nga xam ne mooy sëriñu ibn ataillahi sakandari ak sayidi mohammadul busiri borom burdatul madixi ak alhamziya wa axbarahu xabaare na ko bi umurin ay mbir adidatin yu yéeme yu yu yu limu wa huwa moom góor gi almuctamadu mooy kiñ sukkandiku inde seydina fa suñu sang cheikh tidiane fil ulumi ci xam-xam yi wal asraari ak mbóoti wal xawaasi ak way jago yi walan waari ak leer yi aha bëri na kunaasha daal yoo xam ne ci wàllu xam-xam ak lasraar seydina cheikh ci góor gi la ko jëlee waaw euh, lu jiitu muy dajeeg yonantu sallallahu alayhi wa sallam fi aalamil yaqazati ba mu koy jox tariqa góor gi nag tuwufiya faatuna radiallahu anhu aama sabaatin bi taqdimi siini ala al baai wa thamanina wa miatin wa alfin atum junne ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar mooy at mi nga xam ne ca la Cheikh Tidiane radiallahu taala def ajam gu barkel gu barkel googule yal na yàlla nangu ko te boole ñu ca yool ba ndax jëfi ku juboog yàlla ñëpp xaj nañ ci yal nañ ci yàlla boole radiallahu taala anhu wa ardah kon nag incha allah nag bi hada al sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim subhanaka allahuma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk ba alxames la de